fii ci ndakaaru dinañ faral di seetlu ay makaan yuy fësal liggéeyu artisan yi nekk ci mim réew tey nag dañoo ñëw def benn doxu nemmeeku ci benn atelier bu nekk diggante Point E ak Fann file waa ji artisan bi di Lamine Sy fii lay xëyee di fi amal ab liggéey jëm ci wàll wi moom nag yàgg na loolu ci liggéey bi métti na méttiwul parce que légui bo xolé pratiquement ñi ci dugg dafa bari té galerie bi moy galerie bu ñëk ci Dakar danaka ñu koy woowee Dekaza Dekaza mooy signifie décoration culture art sénégalais africaine métier bi mom metti wul man durant bi mako jàngé jàngee def naa presque 20 ans maa ci métier bi ma nekkee xale bu ndaw ba légui ma ngi ci métier bi fi la jàngé métier ba ni ma ko mokkalee tey jii bëgg dessiner dama koy dessiner ci tableau luma bëgg dessiner dama koy dessiner ci tableau aw problème boobu waaw metti na metti wul su su nga bàyyi sa xel ni ngay liggéey rek do am problème. fi ci atelier bi nak ay tableau yu ñu defaree souf mom lañu fi fiy liggéey Lamine si borom bërëb bi du ñu woon naka lañ koy liggéeyee. wa fi damay liggéey ak ay tableau sablé tableau yu ñuy à base de souf mom lay defar damay jël col bi suma ma jëlee col bi teg ko ci tableau bi dessiné ko ci suma ko dessiné après man may xol couleur bu ma neex ci souf yi ma def ko ci tableau bi mu def genre dégradation. moom laay def nii instant bi étalé naa col bi ba pare maa ngi nii di def samay dégradation ak sable bi di xool couleur par couleur boo xam ne moom ma mën a jox couleuru table bi ma soxla pour ma génne ko ci une fois que boo defee col bi ba pare boo jëlee col bi nga teg ko nii ba pare da nga suuf bi nga teg def dégradé def nu la neexee nga def ko partie par partie ba mu nekk ci tableau bi

Lamine si nak di xamal ni jeexitalu liggéey bi ci gis-gisam. inspiration bi selon que yow li ngay tok di dessiner rek la inspiration bi di ñëwé à chaque fois yow yaay tok jël tableau bi bo vous tableau bi nga xol lan mo nekk sa xel nga dessiner ko des fois mën nga def ben affaire ne lii nekk sama xel nga dem ba ci biir inspiration bi changé nga dessiner leneen ci kaw tableau bi. li résultat final bi moy une fois que mu paré mu wow ba pare nii lay mel nii lay mel xësee ba wow jeex na bu daanoo sax du am problème ak cause que nga jël ndox dugal ci tableau bi xam nga suuf ak ndox moom àndul nga dugal ko ci tableau bi boo ci dugalee moom tableau bi boo xoosee après sa loxo rek day deñ mais il suffit nga bàyyi ko nii rek jël ut punaise wekk fii ak accrochoir yooyu ut wekk teg sa salon ba dee dafay rafet décoration bu rafet ngay am artisan bi nag di ñu xamal ni seen client yu ëpp ay touristes lañu. touristes yi nag ñooy faral di ñëw fii touristes yi ñu ñoo ñuy ñëw di ñu fekk si fii souvent dañuy travailler ak agent de voyage yi agent de voyage yi ñooy ñëw indi seen touriste bu ñu ñëwee ñu xool. expliquer leen à base de sable yi fu muy jógee dans les différentes couleurs du région du Sénégal expliquer leen xool def africain la daal bu ko defee ñoom bu leen intéressé ñi jënd bu leen intéressé wul après ñu demaat xool feneen. li jëm si ndëgu nataal yi nag mu ñuy xamal ni ñu dëkkul si réew mi la gën a soxal moom mu jàpp ni sax doomu réew mi dañu ko xaw a ragal. ah parce que ñun dañuy jaay souvent que di à base au Sénégal dañuy jaay parce que tubaab yi ñu ngi leen koy jaayee maanaam benn tableau bi tableau bu ndaw la tableau ay dimension la tableau bi 30 sur 60 la 30 sur 40 la plutôt am na yoo xam 40 sur 60 la mooy yu mag mag yi ngay gis nii si ginnaaw noonu leen lañ koy jaayee yi yu ndaw la ñu koy jaay.

boo jëndee trois ñu may la benn ñun noonu lay demee tubaab bi dañ ciy kontaan nag ba dee des fois ma def démonstration expliquer leen defal leen démonstration dañuy kontaan ba dañuy jënd bu ñu bëggul woon jënd sax am envie jënd parce que démonstration bi leen defal wax leen expliquer leen defal leen wala leen dañuy kontaan ba dañuy jënd moo tax waaw. tey nag liggéeyu artisan yi am na lu bëri lu ci sooxee loolu waral Lamine si di wolu kilifa yu ngànk mbirum artisanat ak tourisme ñu gestu leen. li may joxe ci message yu ministre de tourisme mooy nañu gën a lancé waat tourisme mu dox Sénégal parce que il suffit que dox Sénégal Sénégal lépp dina dox boo xoolee tey jii village artisanal mënatuñu gis tourisme parce que tourisme amatul doole ci Sénégal yeneen agence yi yu bëri yoo xamante ni tëj nañu à cause de Covid bi fi jaaroon mu baat rek foo xamante ni ñu bëri tëj nañ daal dootuñu doxati ñu toog nañu benn 3 ans boo xam ne gisuñu tubaab 3 ans boo xam ne gisuñu touriste. ñii la ñuy toogee di xoole xëy ba ngoon après dem ñibbi léegi tourisme Sénégal daal maa ngi ñaan mus maa ngi ñaan autorité Sénégal ak état wu Sénégal nañu yeewu si tourisme bi liggéey si tourisme bi am na ñu bëri ñoo xam ne si tourisme la ñuy dund ñu bëri ñoo xam ne si tourisme lañu nekk nañ leen jàppale tourisme la ñu xam nañ leen jàppale lu ñu mën a def si tourisme daal ñu def ko bu demee village euh, artisanal di nga xam ak yeneen village yi partout boo nee di nga gis ni tourisme doxatul doxatul fenn kon ñu ngi koy ñaan monsieur le ministre Mame Mbaye na liggéey tourisme bi tourisme bi dem tubaab yëpp bëgg nañ fi ñëw américains yi ñëpp dañ fiy ñëw kuy dem bàyyi Sénégal di dem ay Ghana di dem ay Tchad xam nga loolu gënal leen il préfère ñëw Sénégal moo leen gënal foofu nañ xoolaat daal tourisme bi tourisme bi gën a dox daal man loolu laa gis daal waaw réewum Sénégal baaxe nañu di amal ay xew-xew yu ci mel ni biennale di ci fësal liggéeyu aar waaye loolee yépp teewul artizan yi ñoo ngi wéy di jànkonteel ay jafe-jafe.